Following the resumption of mantle of leadership of the Gambia Armed Forces, the Chief of Defense Staff, Major General Yankuba Edrame, is beginning a nationwide tour of the military deployment this morning. The military leaders hopes to obtain first-hand information about the living and working conditions of troops in their various places of postings. During the tour, the CDS is also expected to uh, call on regional governors and discuss matters relating to defense and securities as well as security response in the wake of COVID-19. The first part of the tour will cover deployments in the provinces until the 19th of June, while the second phase will cover the deployments all in the West Coast region and the Greater Banjul area from the 22nd to the 30th of June 2020. Ah, moo nekk chief of Defense staff ah, yang Yankuba Dramé et Dramé moom moo nekka tour currently he is engaged in tour tey moo nekka the first day bu moo start léegi too am bi nag pour mu dem si various uh, takkader yi pour dem si gaay seet si gaay si luñ nekka ak tami mu xool seen conditions yi and all that all geared towards uh, the security sector reform and the reformation in the army so moom daal door na toobe léegi fu mu nekka nii daal gaay dañ start provinces yi waaye in the coming days gaay dañoo delluwaat fii ñu dem si Greater Nigeria yi and west coast region yi waaw julde am lii lu am solo la parce que mm-hmm. nit suy liggéey suy suy liggéey si saron mm-hmm. war nga mun xam ci ban condition la nekka especially um this armed forces and the security sector da mm-hmm. because am na ñu nga xamne sen kam ci si ak uh, naka la tudat sax monika keri ndé yi kanono waaw daf dé am a bad living condition waaw so su défé li mu jokk mu bàyyi soxlaam dem won leen ne sax comme maanaam si li ngeen nekkee sax itteel na ma. loolu dafaa yokka euh, dafaa yokka ñooñu noonu comme daf dañoo buga buga bi dañ koy yokk. si seen confidence bi dañ ko restore dañoo yokk confidence and everything. because mm-hmm. dañoo wax ne suñ boos la. waaye bàyyi na soxlaam yépp mu ñëw xool si luñ nekka mm-hmm. xam ñun si yan tànka lañ nekka di doxee. Mm-hmm. fan lañ war a teg suñ tànk ak naka la ak nuñ dëkkee tamit. conditions suñ nekkee jafe-jafe yi ñoo jànkuwanteel yépp pour gars Ah, naka la gars yi nekkee foofu noonu. Mm-hmm. waaye soo toogee rek nga bañ a jóg bañ a xam sa nit ñi laa liggéeyal. Mm-hmm. si lan lañ nekka mm-hmm. comme respect bi sax du fa dee nekka. waaw parce que dañoo wax ne suñ boss moom interest am rek. waaye lii soo ko defee it's a good move because yow ñi laa liggéeyal ñu nga xam ne ñu ngi sa roon da nga da nga da war a xam seen aha ak yelleef. da nga war a xam tamit si li ñoo liggéey. si yan anam lañ nekka di liggéeyee. ndax ñu ngi liggéey liggéey bu baax. ndax ñoom seen liggéey bi jafewut si ñoom. méttiwut ak soo su jógee ñu def di store ñu starté ko from the provinces because foofu moo gën a hard mm-hmm. because foofu dafa um, sori ak di develop developed area and everything especially water electricity and all those stuffs mm-hmm. uh, ba pare di dry land samee foofu lañ nekka ak yooyu noonu yëpp mm-hmm. so suñ jógee ñu dem ñu dem xool ñooñu yan living condition lañ nekka mm-hmm. am dafa gën a improve tamit ñooñu seen liggéey bi ko soo demee nga xam ñii lan lañ nekk di jànkuwanteel yan jafe-jafe yeen lañ nekk di li am foofu noonu di nga leen mun a jàppale di nga mun a def si ñoom su dee doo leen defal yëpp sax mm-hmm. waaye mun na am 25 percent tamit di nga leen ko fajal seen métit mm-hmm. waaw waaw lii moom um, it's a good move am na solo trop te ñang ah, ah, CDS bi tamit nag he is expected su demee foofu noonu dina discuss ak regional ah, governors yi foofu noonu tamit pour ñu xam ñoom tamit mu discuss gaa yi fi coronavirus bi tamit naka la takkader yi nekk di jànkuwanteel mbiri you know si coronavirus bi seen ak ak seen yelef ak ak yooyu noonu. dégg nga Mariam wax na fi lu am solo mu ne ah, lii dina dimbale ñooñu noonu at least dina ñooñu tamit di dañ fiil ne am nañ lii da ku leen yëg soo yow tamit sa jàngaat si loolu noonu ah, si ah, lii ki dafa resume li di new military commander in chief not comment in chief. Barrow will come for me. <laughs> the new C, uh, CDS. so um, moom resume na rek mu dem toog pour xool ñi ñi uh, especially soldiers yi ak yu nekk si security services yi lan lañ nekka di jànkuwanteel foog naa loolu dafa am solo toro Mariam andi na lu am solo foofu noonu. waaw dafa am solo dafa bokk si liggéeyam uh, CDS bu nekk bu ñu lay takkalee ndomba tànk bi. Mm. dafa normal pour nga wër. Mm. kaam si nekk si biir réew mi yëpp parce yow yaa jël responsabilité pour amee. Euh, seen kàddu yëpp. Mhm. sécurité bi everything kon doo mën a toog fii rek si kombo doo xam lu nekk Kudan doo xam lu nekk Basse doo xam lu nekk. Euh, Lamine Koto euh, doo xam lu nekk Farafenni so it's normal nga jog dem seet nit ñi nga óolu nga dénk leen ñu jiite foofu noonu. teg sécurité bi teg yoon bi tam si liggéey parce que wax naa la ne ñun bu ñoo nelaw ñii ñoo tax. Mhm. kon ñii bàyyi leen xel dafa baax a baax di ko ñaan rek Dramé man ku am yaakaar si moom la. Mhm. Euh, keroog bi ñu dajee am naa yaakaar ne dina bàyyi xel tam ndaw ñi nga xam ne ñoo amee kaaraange réew mi nekk si kaam si yooyu nekk si booda bi tam ñu jox leen seen àq ak seen yelleef dafa nekk lu nga xam ne loolu ñu ngi koy aar gos bëri na lu si bëri ñu ngi ko doon jooy si jamono yi passé kon moom dañ yaakaar ne dina ñëw fomp ronga ñi ñooñu nga xam ne ñu ngi doon jooy jox leen seen àq ak seen yelleef mm-hmm. te xam ne ki nga xam ne nii million ak wala million nga xaaf buy nelaw gannaaw yàlla ak yeneen bi ñooñu ñoo tax ñuy nelaw mm. kooku nag ku dara bàyyi xel la ku jara jox ak xam ak yelleefam la mm. ku jara taxaw ay mbiram la rawatina mbir mu nga xam ne dafa aaju si liggéey bi mm. soo loolu ko defee dina am solo bu baax Gambie Army Forces dafa niitaat liggéey bu baax a baax bu am lu bëri li nekkoon si biir loo xam ne waaye yàlla baax na kuñ ko dénk léegi mu ngi woon bu bi bi jaxasoo bu amee ñëw na tam pour nekk bu yaakaar naa dina am leeral yëpp te dina teg lépp si yoon loolu am neen si yaakaar bu baax di rafetlu taw bi am na solo bu baax dem gis ay ndawam xam naa ne dina dina ut tam ñu mu ko dénk ñu nga xam ne ñooy amee si sécurité bi kon ñu ko waxee si gannaaw waaye di wax ne rek ah ñoom nag ñoom. Mm. jeexal nañ corona bi because hansekin bi day dem war yi ñu ngi koy joxante bu baax a baax <laughs> waaw. ah hansekin ma ne ma ne corona bi moom foog naa. non jeex na moom. Ah. jeex na si ami bi daal.